lu baax lenn lu yomb loo gis rek nit di ko am ca mu yomb xamal ne le plus souvent jaarul yoon waaw ndaxte lu jafe rek mooy dagan li may commencé nag damay jëkk a nuyu màggat mu jàllil nuyu délégation bi yépp mais damay reconnaître aussi que ne magat. c'est un homme de ku gëm yàlla la gëm na boppam aussi gëm na ñu mu àndal li tax ma ni patriote la responsable la citoyen bu nekk am nga droit am sa programme am sa Pastef am sa yéene ni bu ma joxee réew mi ma defar ko ndax xool sama digganteeg suñu boroom agit yaakaar naa ni dinaa mën a def lu ëpp ki ko yor li muy def kooku liberté la constitution moo ko maye ku mu neex nga def ko mais su mu mënee ñeneen mooy soo jéemee nga xam ne que lii yàlla dogalagul nga dogal nga nangu dogal ba beneen bi des mooy booy wut réew mi aussi nga boole ko ay principe bu jàmm doo jóg pour di yàq parce que réew boo ko bëggee ba pare di ko yàq noo koy defaree réew aussi boo ko bëggee doo jël doomu jàmbur jël soxnay jàmbur ne ko kaay nga dem sànnil ma xeer ou kaay nga dem xeex mbaa kaay saagaal ma yooyu suñu askan dañ ko tëral ci yooyu te loolu yare wuñ ñu ko waruñu ci yare suñuy doom parce que Sénégal ku ko mën di jiite

ngay jox exemple ay nit naan leen kaay ñu taal réew mi kaay leen ñu toj xeer yi kaay leen ñu saagaante kaay leen def nañ ku mel noonu rafetoo ci jiite réew waroo suscité benn yaakaar pour que nit ñi yaakaar ne yow boo yoree réew mi di ko yor ci ni mu demee parce que ñu ñoo tëral ay charte yi nga xam ne bi dañ ne fi la nit ki di jaar pour nekk candidat ñu teg ne koo xam ne xañ na la sa yeleef am na yoon yoo war a jaar dama defe nii bala nga wax ne kaay ñu taal réew mi ou bien kaay ñu yàq ko dinga jaar ci yoon wen la yoon liñ la ma yépp ba mu sës nga so toog nga soog a toog def évaluation ne léegi nag soit liñ ma xañ teg nañ ko ci yoon kon yoon dal na suma kaw naa ko nangu ak lu metti metti ou nga ni am naa prix bu leer ne ma jalgatil dañ ma foqatil sama mbir nga soo a woon wax ak Sénégalais yi wax ak ñi nga àndal dem seeti kilifa réew yi nga jooytu leen ko seet ba xam ñoom naka la ñu comporté woo gis nga responsable noonu ngay fonctionné boo demee ba jeexal recours yépp nga soog a xool ne damay wàcc ci mbedd parce que wàcc ci mbedd ci démocratie la bokk mais bal nga caa wàcc dafa am ay bi yoo war a def mais man ñëw naa nekk naa candidat élection présidentielle conseil constitutionnel nee na ma mënoo dem mu ne damay taal réew mi kon kenn du dem loolu rafetul ci sama gars yi loolu la ñuy def.